alkaali dina takk daba caam tey bu doon yaay jane ba taal dangay dellu sa sëy wala dangay toog sa kër papa tey lii la ñuy waxtaan ci épisode 26 bi nar a am niki suba laataa may tàmbali waxtaan bi maa ngi lay ñaan nga abonné ci page bi laal cloche notification ndax mboole vidéo bu ñu dugal nga mën see jot ci lu gaaw fii mooy Tiptop Cas 221 fii la ñuy leeralee série bété bété ba mu leer nañ maa ngi jaajëfal bu baax waa team groupe bété bété yéen ñi ci bëgg bokk mën ngeen di contacter ci numéro téléphone bii ngeen gis groupe bi mel na ni de tuq sa bën a sànni xaaral ma tegal leen analyse yi nga xamante ne jot na faa déglu leen. leen da xamal ko yéen a ngi créé mort te yëgu leen ko de barke borom Tuubaa bi ngeen waxee ba mu dellu fa da ngeen créé mort que li tax mooy mbir mën naa xewaat moo xam ne comme dóorante fay yu am na ci rek xot branki ñee xas na dugg ba pare te Marème sañ le dafa sañ te sañ-sañ lay doxe kii tamit am na fit te du dappet hmm? te Maxu day liggéey à chaque fois yaayam mën na koo jañse Amina mën na koo jañse ñu xëy tooñ ko ko gën a pire leneen xew scandale am moor am voilà ngeen yàq seer bi nag bu leen dugg ci bagage boobu xam nga lu baax Marème Maxu na jël responsabilité ma jéem a seet nu mu jabaram mais bu ngeen déggee jabaram xam ne jabaram pare na ci moom. ndax ku bañ ganaar bañaa lay ci jom hmm? maxu tànk wanul ginnaaw yaayam boo bëggee dëgg dëgg mook jabaram ji duñ duñ mos a neexoo ci àddina lii ma wax ba ci xel bàyyi leen ci xel tànk wanul ginnaaw yaayam ngir régler problème bi ne ci yeneen régler problème am jéena bu tal tànkam mi ngi dégg ni nii kër yaayam du fa dellu te du mos a moom bu yëgul ñu ne génn na lu yéene feneen nag nañ am jàmm ma loolu maa ko wax lii ma leen bind leen ko ñoom li ñoom ñoom li ñuy joué xam nañ ko parce que séquence bi bon am na ñu naan waru jéene bu tal wóoru woon a fayu si dafa war a fayu war a fayu gi wax naa ko avant bandanos bi daw te biñ dikkee gis nañ dafa fayu donc bi mu fayoo tamit gis nga voilà ñoom xam nañ ni dafa war a fay moo tax ñu boole ko ci séquence bi c'est ça noonu lay demee rek. gis nga jëkkër ak jabar dafa sacré te dafa nekk liaison boo xamante ne nii comme tomb ak i tomb i bu amul tomb dafa perte yaa ma gën a xam. parce que fii àdduna lu mu gis lañ koy waxtaane mais man d'accord ma yow nga am lu la naqari nga ne danga fay tay bëgg li ngay jooy mu résoudre ngay dem ñu ñëw taxañ taxañee la ngay demaat li ngay faj faaw nga faj ka jël paaka bi defaat xolliwaat góom bi def si alcool naat ka mu saf déggoo ma de daa war a metti daa war a metti moom bu doon maa moom sax du ma nangu sama jëkkër di ma du ma utal appartement bu ko def damay toog ngay souffrir ma nga xam ne carrément yow lu la manqué da li manqué nag du poids léger poids lourd la yaa ma gën a xam dëgg neexul tamit Dieynaba réaction am demee nii parce que euh, comment dire sax lootu réaction am dina demee nii parce que moom xaatu woon ne ah ni ñu xamoon ne Dieynaba dafa bëgg a maxu te dina ko tontoo lii Dieynaba de bu demee ba maam jàpp ka. daal sëñ yow daal sa xol ngay waxee de yow sa xool ngay waxee ak sa gis-gis mais ku ne tamit ak gis-gisam lay demee mais Dieynaba Tall ñibbi woon këram toog gérer muñ xam ni mu téewee sa yem mais loolu tamit dara nekk ci <laughs> yow daal yaay xam naa ne tamit daa am koy faral. wax loolu li may wax rek débat la débat la kenn ku ci nekk day génn li nga xamante si ni mooy xalaatam du dëgg mais mbëggeel dafa nekk loo xam ni dafa am. déggoo ñu am nit ki bu bëggee dafay gumba lu tey jii ki nga nekkal bu dikkoon di ko wax àdduna li ci biiram ci xeetu mbon-mbon doo ko gëm parce que mbëggeel ga rek ngay ngay gis moom ngay xool quoi te dee ci xool ak luñ ko man di teg dina ko tegoo ngir mbëggeel gi mu ko bëgg du ko yaay naa ko dootoo dellu dana fase dana ko déet yaay nañ def ndànk mooy diggante nit ki ak ka mu bëgg ak ki ko bëgg waaw boo cay wax boo ciy wax nañ ci wax lu baax waaw bëgg dafa am te bala ngaa xam ni bëgg am na dëggantaan nga takk ki nga bëgg wallaahi lazim waaw man da loolu laa mos di ñaan képp ku may takk daal na nekk ki nga xam ne dama génn ak moom mu bëgg ma ma dem ba sentir ni kii bëgg na ma te loolu la ma sunu borom jox wax dëgg yàlla te ku ko ci defit doo ko réccu de waaw li am solo tamit benn bi ki ngay bëgg war nga xool ci moom qualité yi nga xamante si nii moo yu baax benn bi war na nekk ku ku correct koo xam ne da lay leer du la indi ci ay jafe-jafe du la eh, duggal ci lu bon ci lu baax la lay duggal waaw yooyu dafa am solo ni góor di tànnee ah, jëkk euh, soxna ah. jigéen noonu la war a tànnee jëkkër waaw mais jigéen du bëgg day miin moom loolu gëm ma kaw Marème Sall nag ak alkaali loolu man boog bu doon man la solution bi ma gis mooy bu doon man alkaali damay tax ñaareel. mais bu ma ko taxee ñaareel tamit bon du ma ko indi ci biir kër gi quoi duma ma koy jëlee apartement bu ma ko jëlee appartement Marème Sall moom mag moom dinañ dund mais bu ma nekkee ci kër gi man damay taxaw taxawaayu locataire moom buy xuloo fii ba suba du ma ko faale bu jógee indi problème man ma jóg dem sama yoon xam nga bu boobaa xam nga liñ naan xuloo ñaar moo koy def te kenn booy booy wax booy wax ak nit te du la faale looloo gën a métti ci àdduna. xam nga ngay wax ak nit te faalewu loolu moo gën a metti ci te en plus man su ma ayee ci ñaareel bi damay sañsee def waaye lépp lu bu parfum gën a neexee moom waaw mooy loolu moom laay jël yére fu mu gën a rafete daal fu mu gën a rafete xam nga préparé sama ay ba nga xamante nii bu may dem waaw lan moom xol bi day laaj moom moom bu ma ayee si moom lu oyof laay sol waaw sama tiset laay sol sama lu oyof loo xamante nii mooy lool bu boobaa loolu xam nga day ci mémoire bi quoi. ci boppam rek bu bu ma kii bis bu alkaane mu ndaw amoon jabar ba mu mbéjaayam nan lay def neexul ci xolu kenn waaw foofu daal moom moom bete bete man mënatuma ko mënatuma cee waxtaan daal ndax foofu lañuy yàqee série bi ñoom ñu joué série bi ñoo yàq série bi waaw bu dee réalité Sénégal lañ bëgg a wane dañ ñuy jàngal ni géer ak géwal amul ak ñuy jàngal ni tëgg ak amul fay ba war naa mën a neex lool fekkoon ni jeene ba fayiwul su jeene ba fayiwul woon moom fay ba Marème Sall day perte li muy wax bu mujj fenn alkaan dina takk daba caam et cetera et cetera série bi mën a neex ba ñu xam ne loolu day jóge Sénégal waaw deuxièmement moom mi ngi dugal Eh, kii Marème Sall mi ngi dugal ci mbëggeel doomam koo xam ne ñi ngi insisté ndax ndax xale bi nee na ko man lañ wax tooroo dala nga ne man ne waa fekk moom xale bu góor bi est-ce que sax du géewul ba tëgg problème yaa ngay démarré foofa de waaw kay maa ngi nuyu